borom général TV dooli bëggee doole. ziar lu bëri doole lu am kattan sax. sant. wala deuxième finale. bii mooy troisième finale saison bi mais santaat yàlla bu baax rek. ndeysaan. waaw maa yàlla bu baax julli sonante bi santaat sama ñaari waajur. waaw du samay supporters yëpp bàyyiwuma kenn xam nga affaire yi day metti mais xam dama leen dégg tout temps waaw noonu la demee waaw. am finale rek xam ñoom dañ leen nuyuwaale di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay bu baax na ñoom dañuy gumbe instant ñu toll nii di leen ñaanal jàmm ak suturo ñu yeggali seen carrière si jàmm quoi man loolu laa am am lu may wax si moom di ñaan yàlla may ma ndam si koom xam nga. mais ko xale yi donte donte mag la mais bàyyi ko xale yi. non daanaan la daanaanu bëre kat la quoi xam nga bëri naa ay magam bëri ay moromam bëri di bëri ay rakam kon dañ koy ñaanal li des si carrière am xam nga mu yeggale ko si jàmm quoi xam nga di sant ñi may jàppale bàyyiwuma kenn ku si mel Pa Adama Cissé ah Pa Adama Cissé dafa sonn si man. Pa Adama Cissé waaw Pa Adama Cissé borom sali daf may jàppale toujours billaay wallaay day metti mais du tegg loo xam barki yàlla gannaaw Babacar Mané baasul daf may jàppale toujours billaay wallaay xam di sant Arona sama xarit Arona Pël sama sama xarit sama doomu ndey maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm xam nga di sant papa Idrissa Ba kooku sama papa la sama xarit la daf may jàppale di sant waa Bargny bu baax a baax waaw ndax man Bargny laay représenté foo man di tamit xam nga guddi guddi Bargny laay ñibbi quoi. waaw loog aw ma seen fay. laa jógee nii ñëw fii. rawatina waa Thiaré nuyu waa kër ga ku si mel ni maa waali jijaak mi ma àndal nii xam nga a Papa Ndiaye xam nga di nuyu ñu may àndal ñëpp bàyyi ma sama gars yi bàyyi ñoom. waaw maa sant di leen gërëm di leen ñaanal xam nga télé bi nag ba doon télé bu mag mag xam nga ba ngeen seen bopp yéen ñëpp si barke Seydina Muhammad sallallahu wa sallam waaw amul ragal

boo defee 2004 ba léegi ngay def poids lourd. 2004 ba 2022. nga def poids lourd. daanaka ñu dugg ci 2023 war a sant yàlla rek. ndeysaan yàlla cant yàgg. waaw gars yi nag maa ngi leen di nuyu. gars yi yëpp waa Loog. waa Thiaré waa Ndorong Mbam Mbasis. rawatina sum Loog waa Foundiougne. gars yi yëpp maa ngi leen di bëggee. macha allah waaw am xale Ndiol Géant nekk xale nekk ndaanaan loo ko indil. non lamb rek. lamb rek yàlla moomoom ndam. Mm-hmm. waa yàlla ma ndam waaw. léegi gars yi ñoom ñoom Boukounta ñoom soldar. espagnol Malick espagnol yi. comme ni ma koy waxee rek. ñoom combat bi ba tey fu gars yi tollu combat bi. dafa yàqu. dafa yàqu dafa yàqu waaw. Ah, mais waxaatal fii grand Sékou. waaw ah. combat la soxla nee na moo ngi nii. Sékou mu ngi nii combat rek la soxla. aca bonne chance soxla. maa ngi woo promoteurs yi yëpp. waaw combat rek laa bëgg. aca bonne nekk ak Malick sunu frère sunu doom yaay Malick ziar nañ la. waaw ñoo ngi delloo ziar euh, Général TV. waaw di la jox wàccu waay. waaw bon di leen bëgg rek saa su ne vraiment di leen aussi gërëm di leen sant. gis nañ seen taxawaa ci bés bi gis nañ ne vraiment affaire bi jàll jaar na yoon quoi. vraiment ñoo ngi leen di gërëm di leen sant vraiment gis nañ ne jàpp ngeen ci bés bi. Euh, li ko ci côté information ba ba ci affaire Euh, film bek yoy yep gis nañ ni ngeen ci taxawé quoi vraiment ñu ñu ci kon am ngeen satisfaction bu baaxa baax effectivement am nañ satisfaction parce que gis nañ ni ngeen kié bon vraiment li mom li mom avancement lay doon ci lamb ji quoi franchement parlant ñu ko rafetu bu baaxa baax gars yi kontaan nañ quoi macha allah merci beaucoup Malick merci merci beaucoup temps xooj quoi waaye fekk a yaatal jaajëf gars merci beaucoup ok merci aca waaw final poids lourd fii ci Sékou Diouf sum lóog Sékou Diouf borom lóog Ndiol Sayan Bargny ndeysaan Ndiol Sayan bu lóog waaw waaw Sékou Diouf à gauche Ndiol Sayan à droite waaw waaw troisième finale successive pour Sékou Diouf moo finalu Koumbal final ba yeexu mu ñëw Fatick finalu moom Mbine Ndiol daan ko mu ñëwaat fii si Kasaxas di finalu waat ndeysaan moom Ndiol Géant Ndiol Géant nee na bi mooy troisième finale am moom it ci saison bi waaw waaw l' expérience face à la jeunesse waaw waaw suñu lamb final poids lourd Sékou Diouf Ndiol Géant waaw waaw di bëgg mbokk internet Sénégal TV yi ziar na ñëpp ndeysaan suñu limee dañuy juum di leen bëgg di leen ziar mbokk internet yi di bëgg waa 100 pour cent bi 100 pour cent général TV ndeysaan Ndiaga Faye du la fàtte Mamadou Diouf saltige Mamadou Sarr le frère de Moussa Touali waaw waaw waa 100 pour cent bi yëpp bu limee dañuy juum ndeysaan di bëgg waa Kaolack waa commune de Kaolack waa Kaolack commune di bëgg waa commune Xelkom Birane fi la lamb ji xewee nga saxas di waa Gandiaye waa Sibassor waa Njëbel ndeysaan waa Ndiobène ah waa Kahone Maka Kahone ba keroog ngay dugg Kàcce Birkilane Jaafat Koutal Koumbal ba keroog ah ndeysaan Sokone ziar final palu, lourd diggante Sékou Diouf Sékou Diouf Soumlok à droite Ndiol Géant à gauche ngeen li fii ci Ngasaxas 23 décembre 2022 animation Babou Faye Ndougor Fat Thank you. 3 minutes de combat dara xewagul diggante Seeku Diouf ak Ndiol Séan final poids lourd physique Kasaxas 23 décembre 2022 Kasaxas mu ngi commune Xelkom Birane après cakalaar la ndeysaan côté Beelaw be ndeysaan dëkk grand champion yi dëkk sunu papa Odal Dior Diatta Faye dëkk grand champion Faraw de nga ko buuna juuf malamin Pape Yékini fàttewuñ Desan, ndeysaan waaw waaw dëgg lamb la Islam Cakalar Islam numéro 2 wala nga def bang coom borom nga saxas buñ la fàtte ñu lay bëgg frère waaw waaw sa dëgg lay xewee ndeysaan le grand champion Baal Maroon borom la Pierre ngi Sangomar ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ woon ah sama grand xaar fay borom bu xam du ma kar bi de combat jàppante ay loxo bàyyante diggante Seeku Juuf waaw loolu da ko mën Senghou loolu forum la da ko mën ndeysaan bu la jàppee pour nga rëcc problème la waaw waaw ndeysaan borom 23 ans de carrière nee na ma depuis 2004 ba tey moo fayda moo ko fi mu toll léegi Samb moom xam fu muy teg tànkam moom Seckou xale yi nañu ci moom arbitre sifflé na pause cinq minutes de combat pause waaw waaw arbitre sifflé waat na combat ba diggante Seckou Diouf Ndiol Géant pause minutes de combat lañ def i round cinq minutes la ñu bëriwaat waaw waaw bu combat deuxième mi-temps the deux combats lañ am na si ñëwaat na ko diggante ngëm na ngëm bu jox am na ngëm Ndiol rocc na loxo ba kor ko Ndiol Saint Aloum bu ko def waaw waaw Ndiol Saint Aloum la gën a wóor Ndiol eh, a ko ubbil wet ga Sékou am na ngëm bu ñaari loxo ci ngëm dengañ ko ci suuf Ndiol Saint Ndiol Saint Sékou loolu forcé na ko loolu koy forcé takk na ko waaw waaw loolu du yomb de ndeysaan loolu sa yow forcé na ko léegi bu ko songale mais Sékou نارجا تورو آو ها nga noonu Géant koy forcé Géant Géant takk na ko waaw waaw Géant daan ko Ndiol Géant daan na Sékou Diouf Ndiol Géant jël na lambu ji fii ci nga saxas gi bi gi bi daa haa na kamera faa